lu la lu la métti alors euh, Madiambal semaine bi mm. euh, dañu surprendre avec un un livre euh, un livre ngay revenir euh, ci euh, beaucoup de faits d'actualité waaye rawatina mm. ci li nga xam ne nag moom moo lëmbe réew mi mu di la l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr alors pourquoi parce que pourquoi nga choix nga xaar ba procès bi jeex nga doog a génne livre bi daanaka sax am na mbir yu bari yoo xam ne mm. waxoon nga ko avant. Mm-hmm. Euh, livre bi wax dëgg yàlla euh, maa ngi euh, ci sa sant sénégalais yi ni ñu ko accueillir ndaxte wane nañu nit ñor na leen soxal na leen li ci nekk bëgg nañ koo jàng te ñi nga xam ni jot gis nañ ci la nga xam ni jàpp na ni njariñ la pour ñoom wala yokk na leen am na lu mu leen yokkal wala am na lu leen indil wala ubbi na seen i bët ci lu bari. Hmm. kon loolu bu amee dama koy rafetlu te. Euh, di wax ni que xëy na bu euh, dee contribution lu mu néew am njëriñ pour réew mi euh, li nga xamee ni aussi dinaa ko ci nemmeeku ci réaction yi nga xam ne nit ñi def nañ ko ci li ma gën a jàngal mooy nu Sénégalais attaché woo ci jàmm ak réew mi ak lu koy ñoŋal ak lu koy aar réaction yi ci ëpp loolu la li ma ci gën a neex tamit am na bët ba nga xamee ni que xëy na ki ñu jàppe ni mooy la victime de Adji Raby Sarr musuñu ko déglu musuñu ko jox kàddu musuñu ko may nopp ba tax na sax dañ ko ni woon doo fi waxee euh, dooñ ko ni doo fi waxee euh, ba nga xamee ni que lu nit mas a yëkkati ci lu ñaaw teg nga ko ci deram lu mu nit mas a xalaat la nga xam ni jomb nga ñu waxal la ko wala jomb nga ñu waxal ko sa nawle wala jomb nga ñu waxal ko sa mbokk sañ am nga sañ-sañ wax ko ko mm-hmm. jo jox bi ko ko te amu ci lu loo ci aaye sa bopp bi nga xamee nag tey am na ña nga xamee ni li ci confidence wu aji Sarr yi génne bari na ñooñ ni man de wax dëgg yàlla man am na ña nga xam woo nañ ma ni ma dey mbir mi bi ma jàngaatee xale bi am na lu mu def ci man te gis-gis bi mu ne ak bët mu kon xoolee wute na bouleversement am na ci ñu bari. Mm-hmm. émotion am na ci ñu bari am na ña nga xam ne gis nañu ni kat lii fooguñu woon ni que euh, lépp xew na ci. te loolu li muy indi moo di xëy na suñu société dafa nekk société boobu nii boo nekkee doomi borom barke wala doomi ku ñu xam wala doomi ku am nañ lay téye ak nañ lay xoole ak nañ lay lijjantee sa mbir bokkul ak ka nga xam ne nekkoo doomi kenn te malheureusement aji looloo ko dal loolu ko ku néew doole la daje nag ka nga xam ni mbir dox la seen diggante jote nañu. ku nga xam ne que xëy na am na doole wala xëy na am na baat ci réew wala xëy na am na ñoo xam ne ñi nga ànd ak moom ki nga xam ne moo kuy néew doole ki ñu ko benn chance mu wax jàpp moom daan nag sama devoir la en tant que journaliste bu ma amee occasion ma wax ci moom may ko occasion bi nga xam ne euh, amu ko woon ndaxte boo xoolee coow li coow li ñaari at a ngi nii ñuy wax ci affaire Adji bi mu dikkee tribunal ñu koy atte interrogatoire d'audience ba matul ñaari waxtu est-ce que Adji Sarr amoon na occasion la mu waroon a génn lépp mu génne ko est-ce que conditions yi mayoon na ko mu wax la mu waroon wax lépp bi yàlla dogalee nag moom ay enregistrement yi nga xamee ni que ay yu bari la te ay fan yu yàgg mu nekk ak ci sagoo génne li nekk ci biir xolam am na ci moment yoo xam ne boo lii région lii di gis ne tàggu woon nag sago wala doon na ci jooy euh, daal xolam tooyoon na mu wax la nekk ci moom defe naa ne que am na lu mu jur justement en fait cette affaire ñun tas euh, je vois que euh, moom euh, elle est touchée par chaque parole prononcée contre contre elle commentaire yi ñuy def ci moom presse bi lu muy wax ci moom lu ñuy waxtaanee ci moom peut-être qu'elle aurait préféré peut-être que journaliste yi wala presse bi def du parti pris mais xam nga li metti ci genre dossier yooyu dëgg bi day nëbbu donc li nga mën a def mooy traité Ousmane Sonko ak aji Sarr comme ñaari citoyens yoo xam ne dañoo dañoo dañoo jote mais euh, dafa am benn phrase très très touchante moi je pas revenir sur les sur ce qui s'est passé mais une phrase très touchante elle dit je suis entrée dans un cauchemar toute ma vie j'ai cherché l'amour quelqu'un qui m'aimerait vraiment comme je suis, qui ne me jugerait pas, euh, quelqu'un qui, euh, trois points de suspension, je ne sais pas, je ne connais pas l'amour. Alors en tant que jigéen en tant que nga am doom tu, tu, tu es ému parce que c'est souvent le drame des des enfants le drame des femmes le drame de beaucoup de Sénégalais yoo xam ne tamit euh, man waxuma ku tooñ ak ku tooñul mais ñu ngi dund situation yoo xam ne nit ñi nit ñi duñ ci bàyyi xel je avec en lisant ça je me rends parfois qu'en faisant des émissions on a dû dire des choses très blessantes euh, à une jeune dame à une jeune fille et justement loolu moo ci am parce que xam nga da nga naan bu ñaar jotee da ngay jéem def traitement xëy na xamoo fu dëgg nekk nga jéem a def équidistant mais équilibre amul ci woon ci traitement presse bi may mun ay ay journalistes lañu. waay journaliste am lañu nañu waxante xew. Adji Sarr a été accablé systématiquement par les médias journaliste bu bëgg a wax ci Adji Sarr défendre ko wala nañ ko déglu sax ñu saaga la wax la lu nekk amul lu ñu fi yekkul journaliste bu jéem a défendre Adji Sarr amul lu ñu fi yekkul euh, nit ka nga xamee ne da ngaa jóg nekk homme politique wala nekk société civile wala nekk feneen ni lañu may lañu respecté droit xale bi ku ko ci def amul loo déggul ci lu ñaaw amul loo déggul ci lu ñaaw ba tax na ñëpp dañoo mujj waaf kenn ñi may tudd Adji Sarr Adji Sarr c'était la pestiférée loolu mooy li nga xam ne responsabilité média yi la c'est notre responsabilité de média on a fait un traitement déséquilibré au détriment de Adji Sarr saa mu neex mu naqari loolu la média yi taxawee dafa amoon terreur ba nga xam ne dafa am te ba léegi dafa am dama lay jox benn exemple rek may mun a ba nga xam ne dina la reetaan loolu livre bi mu génnee xaw naa ci tumuraanke pour jaay ko <laughs> non xam nga lan moo xew annonceurs yi ci seen bopp publici panneau publicitaire yi gisoo ko ci benn benn panneau publicitaire dañ ne yii ma jàmbaal livre bi dañuy toj euh, panneau yi bu ko defee dañuy toj samay panneau duggul foofu am na ay libraire ya nga ni ne nanguwuñ ko woon jaay bi ñu dawalee ñaari fan ñetti fan ñu gis ne livre bi ñëpp soxla nañ ko lañ ko commencé laaj mais au bi kenn nangu koon jaay vendeur journaux yi nanguñ koon jaay ndax bañ ko leen attaqué wala ñi koy jaay dañ ko def ci benn saak boo ko laajee ñu génneel la ko parce que terreur lañ dugal ci bopp nit ñi ba kenn ñemewul assumer ni kat damay jaay benn livre ba nga xam ni day wax ci problème bi est-ce que ñun Sénégal war nañoo tool ba ay nit mën a tere wala mën a am benn livre bu ñu bëgg a jënd dem jëndi fañ koy jënde liir ko lañ cay gis lu leen neex wala lu leen naqari ñu gis ko ci kon dañu mujj ba terroriser sénégalais yi ba kenn ñi wula saqat gis nga dafa am benn maison d'édition ba nga xamee ni avant ma koy publier ci gën dama ko yónnee dama ko ni dama ko woo ni ko dama bëgg génne livre mënu ci lan ma wax ko ko ba ma ko waxee rek ma gis mu commencé daw responsabilité ni ma waaw kon yónnee ma ko ci par email euh, ma xool ko ma ne ko jox ma sa boîte email mun mën naa la ko yónnee ba sànq suba yónnee wu ma boîte yónnee wu ma email bi bañ naa ko ba man bi may imprimer sama livre dama ko imprimer à l'étranger pour le faire venir ici est-ce que am nañu ñun Sénégal dem ba nga xam ne moomatuñu suñu bopp wala ñemeetuñu fee taxaw parce que am na ay nit yi nga xame ni que dañ lii du fi amee wala dañuy dal ci sa kaw moi fis moo tax responsabilité médias yi am na ci responsabilité population am na ci responsabilité état am na ci parce que état protégé wul citoyen gis nga fi ay nit ñi nga xamee ni dañoo dikk nit taxawul leen dal leen kër jàmbur état seetaan ñu dal kër jàmbur dara fekku leen ci nga gis ñu lakk kër jàmbur dara fekku leen ci nga gis ñu agressé nit dara fekku leen ci kooku c'est la responsabilité de l'état qui doit protéger les personnes et les biens ñun dañu war a nekk ci suñu réew ñu ñuy terroriser ci biir réew mi man du ma ko nangu.